waaye bu ñu yàlla dimbalee. jom ñu am ak yéen daje bu gën a yaatu. nee na jombul ñu am ak yéen daje bu gën a yaatu. gën a santante ak yéen. gën a santante ak yéen. gërëmante ak yéen. gërëmante ak yéen. sant nañ ñëpp. nee na sant nañ ñëpp. gërëm nañ ñëpp. gërëm nañ ñëpp. képp ku ci yëngatu. képp ku ci yëngatu. yal na la yàlla may barke. yal na la yàlla may barke. ak teraanga. ak teraanga. ba nga xamal sa bopp ne. ba nga xamal sa bopp ne. ay fan am na ay fan ak ay guddi ak ay bëccëg ak guddi mooy liggéeyal yàlla yoo xam ne liggéeyal nga ko yàlla alhamdulilah alhamdulilah teraanga jaa nii teraanga jaa nii yàlla ko yàlla yokk yàlla na ko yàlla yokk ci barke yonent bi ah fii ñu nekk nag nee na fii ñu nekk nag ñëpp sonn nañ ci ñëpp sonn nañ ci ñii ñaan nañ seen kem kàttan ñii ñaan nañ seen kem kàttan ñii joxe nañ seen i alal. ñii joxe nañ seen i alal. ñii am am yéene ñu sol seen daal julli si. ñii am nañ yéene di sol seen daal di ñëw di julli si. waaye jàkka daal. nee na waaye jàkka daal. amul benn njëriñ. amul benn njariñ buñ fa saxalul waxtu bi fa saxalul waxtu bi juróom. góor a jigéen a ci yem. nee góor ak jigéen ñoo ci bokk yam kon kenn ku ne. nee na kenn ku ne. na nga soññ sa bopp. na nga soññ sa bopp. sant yàlla. sant yàlla. lu la lu la sori woon. lu la sori woon. jege na la. jege na la. lu jafe woon ci yow. lu jafe woon ci yow. yàlla yombalal na. yàlla yombalal na la ko. génn sa kër. génn sa kër. dugg ci jàkka ji. dugg ci jàkka ji. guddi ak bëccëg. guddi ak bëccëg. am ci yaaba. am ci yaaba. jar na sant yàlla. nee na loolu jar na sant yàlla. fii nag. kenn moomu nee na te fii kenn moomu ko jullit ñoo ko jullit yëpp ñoo ko bokk su waxtu jotee bu waxtu jotee nodd bi jib nodd bi jib ku mën a waaj ñëw ku mën a waaj ñëw waajal ñëw waajal nga ñëw jullit mbooloo julli mbooloo nu mbooloo mi gën a xumbe nu mbooloo mi gën a xumbe te yàlla tax te yàlla tax ca la njëriñ la di gën a yaatu yàlla def sutura. yal na yàlla defal sutura. ni ngeen ko ñaanee yéen ñëpp. nee na ni ngeen ko ñaanee yéen ñëpp. yàlla nañu ko yàlla may. yàlla nañu ko yàlla may. mooy wér goo xam ne. mooy wér goo xam ne. waxtu wu nekk. waxtu wu ne. dañuy mën a teew ànd ak yéen. dañuy mën a teew ànd ak yéen. yàlla nañu ko yàlla defal. yàlla nañu ko yàlla defal. barke alxuraan. barke alxuraan. barke coono yi. barke coono yi. barke teraanga yi. barke teraanga yi. barke yaakaar yi. barke yaakaar yi. yàlla bu yaakaar tas. allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam